te pourtant ba ñu paree ci élection législative yi mais dañu jox résultat yi rek maître Abdoulaye Wade ne Lamine Thiam mooy nekk seen candidat. pour pour la présidence de l'Assemblée automatiquement la génn wax ko ba mu waxee wax jooju laa ne c'est terminé opposition bi mënul gagner présidence assemblée nationale puisque une parti de l'opposition nee na day présenter un candidat xam nga boobu yëg lante amu fa woon mhm. léegi le fait tout simplement le fait tout simplement mhm. que ñu voté budget ministère yi mhm. ñu voté budget ministère yi avant déclaration de politique générale Amadou Ba mhm. maanaam ñu mettre la charrue avant les ba oui. voté budget bi saa que Amadou Ba ñëw présenter sa wax lan la nar def ci budget bi très bien loolu rek loolu rek c'est un motif valable pour ñu déposer une motion de censure dans gouvernement bi loolu rek ça suffit waxuma sax ñu nekk fii di convoquer le bilan du président Macky Sall mais le fait tout simplement que le que la déclaration de politique générale li maanaam li gouvernement bi. Euh, nar a na ma def. Mhm. ñu wax ko après avoir voté le budget loolu rek sa suffisait pour que ñu daaneel gouvernement bi ne leen lii ngeen di def c'est pas sérieux malheureusement euh, ci euh, li ñu comprendre mooy que. Mhm. waa wàllu askan wi nekkuñu woon. ci dynamique boobu parce que man dama jàpp ne. bu nekkee le gouvernement euh, dafa ñëw def une declaration de politique générale. Mm-hmm. ñoom ñu ne ay opposants lañ te man ma jàpp ne opposant kenn du ko déclarer tout simplement rek yem ci. Mm-hmm. da koy jëfe également. donc ñoom bu ñu taxawee quelque part euh, euh, ne dañuy xaar pour ñu associer leen ci loo xamante ni ñoom dañoo jàpp ne seen xeex la. Mm-hmm. <laughs> dama ne tout simplement. il y a problème la parce que tey jii nii on pouvait s'attendre à ce que. maa ngi rappelé euh, le discours de Mamadou Lamine Diallo. ñu daaneel foofu oui. lu mu wax. Mhm. bi mu jëlee euh, parole bi muy terminé dafa wax le ministre le premier ministre que j'espère que di nga demander un vote de confiance. de confiance. loolu rek pour man c'est des propos liminaires ah d'un projet de motion de censure te loolu wala ki ko wax. wala la bokk mhm. donc bu nekkee ne euh, déjà loolu nekk une réalité en plus de ça nga jële nga jël Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fële fële. di ñëw di naan ay. ba ma fi mais moom lu mu déclaration bu mu def ak waa Wallu ñoom lu ñu wax mais ça n'a absolument rien à voir parce que moom pratiquement boppam la jiital ne bañ ko fi jàppee. kenn conférence de presse alors que ñee dañu ñëw di <laughs> lii ak lii ak lii moo tax. mbokk baara ngay boobu géelu xam nga léegi nag le plus important. dans tout ça rokk mi rokk te euh, je pense que monsieur le député wax na ko sànq man moom ngeen baal ma ko rek du ma wax honorable député monsieur le député laay wax. Euh, honorable député c'est une création de Ahmed Aïdara. oui léegi ma ne <laughs> ma ne bu ne moom dafa wax lépp mu hmm. leer ci benn kàddu. Hmm. maanaam mooy intercoalition bi c'était euh, nu mu durati. intercoalition électorale. électorale voilà c' était, c' était une entente électorale. oui alliance électorale. avec un programme. non non lo alliance électorale nga wax. donc, mu leer na ne ñoom seen i objectif nekkul. comme li président Macky Sall waxoon ak waa PS ak waa AFP on prend le pouvoir on gouverne ensemble. ensemble non lu ñu wax mooy on va ensemble aux élections on gagne ku nekk dem sa yoon. ku nekk dem sa bopp seulement est-ce que aussi duñ leen duñ leen exposer quand même devant le peuple sénégalais bu fekkente ne dañuy teg benn affaire boo xam ne par force da nga ko war a suivre wala boo moytuwul sax gars yi dal ci sa kaw. mais mais justement foofu la mérite bi amee sens parce que tey jii nii xam nga ñu ngi doon voter les budgets ñu ne tey jii nii naka la le gouvernement du président Macky Sall mën a présenter un budget de six mille quatre cent milliards. Mhm. nañu quarante cinq pour cent de ce budget la social la te opposition bi xataraayoo ñu tëdd ci suuf ba Sénégal yëpp dégg ko. d'accord alors ça c'est un problème. oui le, le constat qu'il faut faire quand même euh, maam Birame dans dans dans cette histoire là mooy yaa ngi wax euh, majorité mu euh, Alioune Gueye wax na ko sax minorité présidentielle nga ne amuñu majorité Baara Gaye ne am nañ majorité mais li ñuy wax souvent mooy une majorité ça sert à quelque chose. Mhm. tey jii je me di Macky Sall lu muy doyee majorité. pourquoi lu may je me pose cette question là mooy depuis ñu juge élection législative yi ba léegi. amul dara lu gouvernement wu Macky Sall initié bëgg mu jàll assemblée nationale te jàllul. tout ce qu'ils veulent ils le font. Mm. donc finalement <laughs> ils n'ont pas besoin de majorité. Mm. mais mais xam nga foofu la piège bi gën a nekk. oui parce que tey bu ñu nee. Euh, rupture bëgg yàgg nañ koo bëgg ci dëkk bi. Mhm. mais amuñu woon possibilité def ko parce que à l' assemblée nationale y' a une majorité mécanique boo xamante ne nii. lu fa ñëw comme loi mu voté ko. Mhm. bi ci mujjee avant ñuy dem élection législative mooy OGM yi nga xamante ni Sénégal yëpp dénoncé nañ ko ñu laqatu seen ruq voté ko à l' insu des Sénégalais. Mhm. comme comprendre bu nekkee ne eh, eh, eh, dañu dem ba toll ci dimension boobu léegi sénégalais yi dem voté ji. ñu ne ak sunu vote bi kat dinañu créer benn équilibre boo xamante ne nii. Mhm. mais li fa daan xew dootu fa xewati maanaam ku mel ni Moustapha Diop. Mhm. ñëw devant les députés ne du ŋaang ñu voté ko budget mu dem exécuté bu nu ko neexee. Mhm. ñu ne bi budget ministère de la défense. kenn dootu ci kenn du ci débat day Sidi Kaba day ñëw ñu votel ko mu dem gérer nu ko neexee. ñu ne aujourd'hui ak l'équilibre des forces. de budget yi nañ ko daan voté muy jàll aussi facilement. Hmm. dootul amati. budget bi nga xamante ni jox nañ ko président de la république. te doyewu ko dara lu dul di woon nit ñi pale di leen di neexal. Hmm. mais loolu dañ ko war a xoolaat. seulement bu nekkee ne sénégalais yu voté nañ. Hmm. di xaar quelque part rupture am par rapport à la gestion. mais malgré équilibre boobu. on voit que ne pratiquement. li daan am. mooy am ba léegi. mu ngi jàll ni mais mais. xam nga xam nga dañ daan dañ doon. parce que euh, les accouchements peuvent être douloureux mais mi ngi jàll ba léegi. mais c'est ñu ngi jàll. mais c'est plus qu'une catastrophe xam nga dañuy def comparaison nga may ma da daanale foofu. dañuy def comparaison ak ce qui se passe en France. Mhm. parce que configuration politique bi c'est exactement la même chose. dañu nuroo. très bien. Mhm. mais ba démb seen premier ministre bi pour la dixième fois. dugal na la 49 3 maanaam. qui veut dire que ni dafa bëgg a. très koy perte mu mën a forcer parce que assemblée day bloqué. day bloqué. absolument malheureusement Sénégal fii loolu am simple ci ci bopp ñuy seetaan alors Ramatoulaye est-ce que <laughs> je vais faire de la provocation là est-ce que lii lépp wanewul ne. lu mel ne lu ñoom maam Birame Waaj doon wax depuis des mois déjà que ni ñoom Baara Gaye ñii ak ñoom Alioune Gaye mii réeroowuñu maanaam waa PDS ak waa Alliance pour la République. Moustapha foofu laa doon bëgg ñëw je pense que man li may wax sax mooy est-ce que waa yeew euh, waa Pastef xam nañu réellement euh, ñoom euh, wàllu li ñuy jouer role bi ñuy jouer parce que je me dis que ni. dynamique bi ñuy nekkee c'est pas c'est pas franc du tout wu ñu un franc parce que bu fekkee tey jii motion de censure bi demee na nii ñoom ñu naan ils sont pas là pour soutenir aussi bien le, le gouvernement fii premier mm-hmm. ministre ou bien duñu dañuy abstenir mais attends loolu rek vote la bu fekkee yow da nga ne tu fais partie de l'opposition da nga nekk ci benn groupe parlementaire féete ci opposition bi mu am benn motion de censure boo xamante ni toute l'opposition ñoom ñoo ne woon dañ koy voter yow nga démarqué wu ça veut que ni am na loo xamante ni euh, y a des non-dits je veux dire am na lu leerul foofu am na lu leerul te tey jii Pastef xaw ma ndax xam nañu ni ñii seen dynamique. bi ñuy demee ñii waa taxaw Dakar ah. waa taxaw Sénégal waa taxaw. Mhm. voilà donc xaw ma ndax. ah yeewi yeewi <laughs> voilà yeewi xaw ma ndax xam nañu dynamique bi wàllu li demee parce que yàgg nañ ko wax ñoom ak waa. Benno réeroowuñu te lii également wane na ko à suffisance te on se rappelle également présidentielle ba ni nga xamante ne maître Abdoulaye Wade également doxalee woon na ko nga ñëw boobu ba tey ñu ngi poser ay actes mais tamit ce son de des des politiques yoo xamante ni ils sont très subtils il faut que waaye yeewi xam ne ñii ñuy ñu ñu ko digaaleel tamit du ñu ay nain politique ils sont très subtils hmm. seen jeune ak xëy na léegi doo ko xamagum mais ci kanam dinañ ko gis da ngay gis ku mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly mi ngi naan moom également kenn délégation da koo jox Omar Youm hmm. moom la ko jox. pourquoi ba muy dem Qatar. waaw pourquoi yóbbuwu ko ci opposition également. wala son président de groupe. voilà defu ko donc. si si pour dire que nii am na loo xamante ni ñu ngi koy joué au niveau au sein de l'hémicycle te tey jii mën nañu wax Lamine Bara bu ne que ñoom ñoo amee majorité à l'Assemblée on peut le on peut lui accorder ça du moment que. Mhm. ñoom li ñu bëgg voter yépp ça passe. Oui. ça passe comme lettre à la poste opposition bi tey jii ils son au coude à euh, avec euh, le le waa Benno et ñi ngi coude à coude ñi ngi doon yaakaar ni tey jii xëy na assemblée bi tendance bi dina renversé wu dina am yoo xamante ni dañ ko bloqué carrément. Mhm. mais depuis lors on dirait que euh, Benno ñoom ñoo am foofu toujours euh, majorité. parce que rien amul lenn loo xamante ni bloqué na amul dara tout passe comme lettre à la donc il y de quoi se poser des questions par rapport également ak chose qui change peut-être mooy coow li day gën a bëri saaga yi di ñëw ñuy sànnante siège ak daal mais fi ñu mujjee mooy budget bi day jàll moo tax Bara Gaye a raison de dire que ni euh, enfin alors Pape euh, parce que Aliou Gueye am na lu bari lu mu war a leeral <laughs> mais ñu ñu ngi ci ñëw léegi euh, Pape Sané est-ce que Yewwi Askan Wi quand même soxla woon nañ jël su ma ko mënee tudde noonu jox waa wàllu prétexte bañ a voté c'est-à-dire que ban intérêt dañ am ci déposer une motion de censure boo xam ne ñoom leer na leen ne avec les députés de yeewi kase mënul jàll te ñu koy déposer sans ñu waxtaane ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci wàllu Sénégal par exemple peut-être mais avec les non inscrits waaw mais Moustapha euh, question bi tamit euh, euh, plutôt sax fee bi moo moo moo problème parce que lu day ni motion de censure ma ne ko lu day ni motion de censure euh, nga war a am vingt